بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokki yu tedd yi fi teew di bokk jullit bàyyi ko ci mboolem àdduna si yépp bokk jullit yu tedd yi fi teew bàyyi ko ci biir réew mi kàddu yi lu gàtt lay doon ndax ki nga xam ne mooy jëwriñu cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne mooy borom liggéey bi di cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu cheikh Mouhamadou Bachir ñëw na terale ñu teew ci jataay bi ubbi ko barkeel ko defe ko ci ndigalul ki nga xam ne mooy alxalifatul am li tariqati al muridiya al cheikh Sidi Muxtaar xafidahu llahu taala wa zaada min nasrihi wa ko fi lu yàgg lool te mu ànd ko wér ba naal yi xam ne am na ko ci lislaam te la ko ci gën a war di benn julli ji suñu borom gën ko ci may ay ndam nañ ko ko maye muy jëmm joo xam ne ni ma koy faral di waxee dafa bokk ci ndame lislaam yi ndax dafa bokk ci li ëpp solo ci cheikhu tarbiya ak cheikhu tarxiya foo ko gisee rek sa xel dellu ci yàlla su sa borom te suñu borom defal na ko ko li ñuy wax hibbatu taqwa it suñ borom defal na ko ko kon yàlla fi yàgg te ànd ak wér di nuyu bokk yi teew yi tedd yi fi teew yépp ci turam ak ci ndigalam la suñu kilifa gu tedd ga di sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacke waxoon rek laay waxaat ci jataay bi dafa waxoon ne bu ndigal jotee Cheikh Mouhamadou Moustapha joxe ko ku yónnee na yónnee Cheikh Mouhamadou Bachir ñëw Cheikh Mouhamadou Fadil mën a galas kon jataay bi itam mën naa ni daanaka samay wax jëriñoo du ci bari ndax. cheikh Ahmadou Baday ibnu cheikh Mouhamadou Fadil bu waxee sëriñ Abdul Ahad Mbacke Gaynde Fatma wax sama wax tàbbi na ci biir ndax luñ ci waxaat rek takraar lay nekk kon ñi ngi dalal ñëpp mboolem ñi fi teew bàyyi ko ci àdduna si yëpp ndax lu ëpp ñaar fukki réew teew nañ fi xam naa ñiy bëgg a wax ci kanam darañ ko ñëw limaat. di nuyu suñu bokki këri diine yi bàyyeekoo ci biir senegal bàyyiwuñ ci kenn buñ ko tegee ci loxol suñu doom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ibnu Serigne Abdoul Aziz si Al Amin ñu koy ñaan waajuram yu tedd suñu borom dolli ay leeram bu baax a baax ndax kenn mënu koo fàtte ndax taxawaayam ci lislaam ji ay taxawaayam ci réew mi ay taxawaayam ci diine ji ni ma ko waxe woon démb rek mu nekk ku suñ borom baaxaloon mu ku mu ko jaboote ñëpp kum gis yéen la jàmm di nit ku xam teraanga leen benn boo ko defal mu defal la fukk te lu ko nit defal rek mu yéem ko naw ko kon nag teraanga la Cheikh Abdoulaye Mbacké da daa wax ne teraanga eh, ki ki ñu ko defal moo ko ki ko joxee ko moom ndax nee na koo teral fu mu yendu fu mu yendu doon sa géwal daana wax itam ne ba je jeesi noppee dox ci l'islam fu mu àggati rek teraanga ko fa àggale suñ borom defaloon na ko jikko jooju moo tax kenn du ko fàtte kon ñu ngi koy ñaanal suñ borom dolli ay leeram te dëgëral njaboot ki mu fi bàyyi bu ñu ko nuyoo nag nuyoo nañ bokkam yi mu àndal ak yeneen ji bàyyi ko ci kër diine yëpp ndax boo ci xasee ba tudd fenn rek tudd nga yëpp di ko yóbbante ñëw ci ki nga xam ne moom la suñu borom teg ca boppu njaboot goodu Serigne Babacar Sy ibnu Cheikh Mouhamadou Mansour Sy mi nga xam ne mooy alxalifatu am li tariqati tijaniya di sant bu baax nag Serigne Abdoul Ahad Mbacké ci lii nga xam ne jiite na ko ci kuréel gi saytu màggal gi ak ñu ko àndal muy xalaat yi ñu def di ndajam tasawuf nii ñu def di colloque international di ñetteel bi muy loo xam ne bokk na ci lii gën a dëgër al uxuwatul islamiya kon ñu ngi koy gërëm ak ñu ngi ko àndal ñëpp di beral ak cant ak ngërëm itam suñu kilifa di suñu mag Cheikh Ahmadou al Badawi ak mboolem daairatu rawdu rayaxiin bi nga xam ne mboolem lu aju ci wàllu saqaafa ci màgget gi ñoo koy def ànd ko sëriñ Abdoul Ahad Mbacké sëriñ Ahmad kon ñu ngi koy sant moom itam di ko gërëm ci taxawaayam ndax moom itam du nopp lu guddi bëccëg ngir lu dundal lislaam ak lu dundal yoonu murit wax ji nag lu gàtt la doon ndax dañu leen a wax tasawuf ak at-tanmiya muy loo xam ne Serigne Touba li ëpp ci am njàngaleem ci la ko tënk ndax boo demee ci ay mbindam dañ ceg isfu bari muy wax ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xëyri waxami te lépp tam mi ngi ko teg ci lu suñu borom santaane ci alxuraan ci nit ki ni mu war a jaamu yàlla te jaamu yàlla gi liggéey dafa tàbbi ci biir ndax ليجي واخ لجي دوم عدم يتيك سخ سون برم اللي كو جسوف موي الخلافة اك العبادة اك العمارة الخلا الخلافة وإذ غال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة العبادة رك بون كو تودي ليپ دا فا تابي سي بير نداخ موي ليپ لو جام بي دي داف دي جا ساكو غيرون اب سانغام wa maa xalaqul jinna wal insa illa liya'buduun moo tax ñuy wax ne wa'bud rabbaka xataa yaatiyaka al-yaqiin kon liggéey bi nga def sax ci biir jaamu yàlla la tàbbi wa aaxaruuna yadribuuna fi l ardi yabtaxuuna min fadlillah bi ci des mooy al imaara al imaara huwa anshaakum min ardi wa istaamarakum fiha suñu borom da koo santaane yooyu yëpp itam génn jënd wax ji kon loolu buñ tànnee tànnee xalaat boobu ngir waxtaane ko fii tey ci jataay bi dana nekk lu am solo ndax fii àdduna toll ci wàllu nit ñi ni ñu yokkoo ay ni économie bi di gën a néewe loolu lépp itam tasawuf war na ci génne musaahamaam te gëm naa ne itam lim ci génne moo war a nekk natiija bi nga xam ne ci la lépp di mujj ñu fexe ba li alxuraan di wax an takuna ummatun hiya arba min mooy ñii am di gën a am ñii ñàkk di gën a ñàkk te loolu buñ delloo ci li suñ borom santaane ci alxuraan buñ doxalee lim santaane danañ ci mucc li yunfiq zu saati min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu kon waxtaan yi lu am solo la ndax suñu borom dafa santaane jullit yi ñëpp xam ne lenn lañ ñu bokk loo xam ne lenn la nag te mënuñu koo seddoo dañuy fexe ba di ko waxtaane di ko rafetal te tasawuf génnul lislaam sharia rek mooy ci la tasawuf génne ndax foo dégg alxuraan tudde li ñuy tudde tazkiyatu nafsi rek xataf li xaman zakkaha loolu mooy tasawuf kon génnut sharia waaye nag mooy tax sariixa jiit it mën a sell ndax bu fekkente ne dangay julli wala nga woor ki nga xam ne sariixa day atte mënatu laa jàmm mënatu laa condamné sañisatu laa rey waaye tasawuf nag mooy ñëw xool ba ndax li ngay wax dëgg li ci dëgg xool ba xam ndax li nga def yàlla suñu borom tax nga def ko mooy xool ba xam li nga def ndax njis sa tàbb na ci déet te njisal dafa bokk ci li yàq jëfi jàmm nit ki mën naa jëf jëf ju baax waaye mu xalaat na jëf naa jëf ju baax rek jëf jëpp yàqu wa rubbama ibadatun kathira qad afsadataha lahdatun aqira ni ko Sëriñ Tuubaa misaali ndax kattan gi nga am muy julli gi ak koor gi lu ci ne boo ci génnee kattan gi la suñu borom jox dara dootu ci desati kon nag ngeen bañ a guddal ndax kilifa yu tedd yi fi teew yëpp tàmbalee ci cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibn cheikh Mouhamadul Fadil cheikh Salif Mbacké ibn cheikh Mouhamadul Mourtada cheikh Ahmadou Rafaay al imam bi nga xam ne moom itam taxawaayam ci lislaam ji ak yoon wi ñëpp xam nañ ko waxtu nekk nañ ci sëriñ Mouhamadul Xaban mu cheikh Mouhamadou Mourtada sëriñ Ahmed Mbacké mu cheikh Mouhamadou Mourtada cheikh Mouhamadou Bachir ibn sëriñ Abdoul Khoudous. bu ma limee damay jum sëriñ Sam Bousso ñoom bàyyiwuma kenn ak mboolem ñu ñu àndal liggéey bi ndax boo tuddee sëriñ Abdoul Ahad ñoom ñi ñu àndal di liggéey ñëpp tàbb nañ ci biir kon ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñ kenn fàttewuñ kenn xam ne li ñu def lislaam lañ koy defal li ñu def itam liggéeyal sëriñ Touba lañ ciy fas kon yàlla ñu suñu borom dimbale mooy ñu ak dégg aku topp sëriñ Mouhamadou Bachir Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Moustapha Bachir mi ngi nii sama wet sëriñ mu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ne moo jiite wàllug lépp lu jëm sa relation ci biti bi ci wàllug euh, comité bi organisé màggal gi moo ko yor mooy itam mi ngi di toog kon daal ci tënk bàyyiwuma kenn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan ndaje mii ñu def ko ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin tam mboolem liñ fi wax itam ñu dégg ko te topp ko jaalana allahu min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu te bañ a bokk ci ñi wax ne qaalu sawaun alayna awaazta am lam taku min alwaaizin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu